loolu la def comme tout tout le temps wëndeelu na wax wax wax ba léegi waxul lu leer mais boo dugg boo gasee li mu wax di ko jàngat ci biir da nga xam ne kii li mu bëgg a wax mooy euh, candidat yi na ñëw ñu dialogue bu ñu dialoguewul man après le deux ma bàyyi leen bi seen réew après ñoom ñoo xam xam mënuñu ma mënuñu concevoir élection yi ñu war a yu ñu war a ñu waroon am amagul ba léegi nga taxaw nga ne ñu askan bi léegi élection yi dañ koy repousser parce que moom moo looloo nekk ci xel mi repousser les élections non man defe naa ni dialogue jaru ko de respect de de la constitution lu xam ne da nga ko war a def bul xaar dialogue def ko def ko parce que da nga ko war a def. waaw man pour man day jéem a nëbb rek day jéem a bluffé maanaam def na njombeem xamul léegi moom bu fi jógee ki fiy toog nan lay doxalee par rapport ak moom moo bëgg setal deram jéem a layal boppam jaarale ko si askan wi jéem baal. mais li ñu bëgg def nii dialogue boo xam ne ay caaxaan képp la mu dajaloo xool nu ñu defaatee ay tappale Macky gën fee toogaat yooyu da ko bàyyi man nag damaa am lu muy nëbb Macky parce que man liiru nguur kese. parce que bu doon nguur kese kese normalement lii góob ma dina ko def mais le fait que mu mooy ci affaire yi ba léegi chaque jour muy def ay ay ay pexem man dama yaakaar ne am na lu muy nëbb ci suuf lu muy bañ mu feeñ. yàqte ñun moom lu ñu doon gënal mooy mu joxe datu élection yi ñu def élection ñu pare si daal nekk si leneen jàll si leneen daal moo gën.